temps yee passé am na lu ma wax sax président Macky mu ne mooy kii président Macky parce que dama ne man boo mbir yi sàppee sax man léegi damay démarqué wu taxawal sama monarchie sama royaume. Hmm. sama royaume waaw Touba Choukouri Touba Choukouri taxawal bi waaw. bu fekkee nga nekk foofu roi. waaw buur bu xonq cooy kay <laughs> bu ma wax ji sàppee foofu lay mujj ah oui parce que baax